Mm-hmm. day gis trop. Mm-hmm. parce que tey lii moom lu ñu bett la ñun ñëpp. Mm-hmm. xam ah, ndog-ndog la nag parce que tamit nekk war nga ci bàyyi xel parce que tamit moom dee moom dañuy wax nii ah, ci mbetteel la ñëw. Oh, bett na lu làmb bett bett na milieu sportif yëpp. parce que tamit bon. am na benn partition bu mu joué ci ci làmb ba nga xam ne tey damay wax ni bu doon bu làmb doon garab may wax ni branche bu am importance moo ci moo ci moo ci fax te yow li may wax ni yaa mu gën a xam parce que Gaston bëri na tey mbër boo xam ne tey euh, tu es devenu quelqu'un dans ce pays moom moom moom moom gunge na la parce que nekkul woon rek promoteur dafa nekkoon liggéeyam la woon waaye nag ku yéene ku yéene ku yéene woon mbër la ah parce que bari na ay mbër yoo xam ne bi ñuy am bi Gaston di fexe pour ñu am kër. Mhm. boobu tolloowuñu tolluñu ci kase fu ñu amee kër. Mhm. te loolu ñàkk kiñaan ak mhm. bëgg mbër. am dara. moo tax mu ko doon def. Gaston gugee na ay mbër. ñu teel am kër. te bañu am kër boobu amuñu cachet boobu amuñu lu. tolloo ko ci cachet fu ñu amee lu leen lu tax ñu am kër te fexe na ci mbaaxam ak ci bëgg mbër ak ci bëgg képp koo xam ne yaa ngi deg ay coono ci làmb tey bëgg tey ëllëg ñu ne lii kat yaa ko moom loolu nag ñàkk ki ñaan rek la parce que tamit nit des fois mu nekk ci mbir en toute sincérité te tamit na muy jëflanteel am sax yenn bët yu ñuy xoole te Gaston nag yàlla dafa defoon nag wax dëgg yàlla li may wax ne ma ko gën a xam bari na ay mbër yu mu tette mhm. bari na ay mbër yu mu jàppale mhm. bari na ay mbër yu mu taxaw mhm. ba tey mu dégg alhamdulilah kon ba duñ def dara lu dul jaale ko yéen surtout la presse xam nga ëxlu làmb la presse Gaston ku ne mën nga ko jaale sa bopp ba pare li ma gënoon neex ci moom mooy nit ku bëgg ku mënoon nitam la Gaston nitam kenn du ko laal te loolu nag ay jikko la yoo xam ne tey dafa commencé raaf parfois da ngay da jàpp ne nit kii sa nit la tey jamono dab la mu nekk ci ay jafe-jafe wala mu nekk ci tumuranke mhm. nga taxaw fële mhm. gaston de mën naa la waata ci alxuraan ka nitam kenn du ko laal mhm. te loolu am na fi mu nekk ñu ko mën a seede te loolu nag ci qualité doomu adama la kon boog dañ koy ñaanal yàlla mooy njabootam njabootam rek lay inquiété wu parce que tey bari na ñoo xam ne tey dañu dëddu seen njaboot tas wala seen njaboot réero wala mu jaxasoo kon nag njaboot gi mu fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxom ba nga xam ne seytaane du am ci ñoom yoon soxna si fi mu fi bàyyi yàlla na yàlla may xolu muñ parce que Gaston mënuñoo wax ci moom buñ doon wax ci moom fii ba suba dafay yàgg lool. au-delà emploi yi nga xam ne a neex ci presque sama sama sama les combats mais combats les les plus choquants moo ko tëgg combats yi nga xam ne moom ma génnee tey moo tax tey parce que tey mbër boo gis ci àddina am na ay combats yoo xam ne. moo ko moo ko moo ko moo moo ko lancé moo ko def li mu doon tey ay combat yoo xam ne combat Gris Bordeaux Antoine Bakhoum Gaston Gaston ba may fay ba may fay un million huit cent boobu am Antoine Bakhoum moo mu gënoon xew moo mu gënoon siiw huit cent mille la fay Antoine Bakhoum te Gaston kenn xam ni écurie Fass la faral c'est professionnel ci li muy def Gaston c'est un membre de l'écurie Fass Fass la dëkkoon <laughs> mais mënuloo ko ko xam parce que c'est un professionnel ci li muy def bu liggéey bu leen liggéey sëqee bu leen liggéey boolee liggéey ngeen yem mais Fass la membre la woon mais mënoo ko xam yow mënoo kenn mënu ko xam parce que c'est un professionnel ci li muy def kon nag yàlla na ko yàlla yàlla ko yàlla yërëm lépp loo xam ne njuumte la woon fii ci àddina yàlla na ci yàlla dëgg tànkam ci barke alxuraan gas j'ai tout fait la dernière fois bi may voyager dem Paris def naa ay coona parce que Gaston fu ma mës a voyagé même même avant muy feebar fu mu mës a nekk ci France bu ma yëgee ni muy fan dana daj ay coono ba gisante ak moom parce que mënoon na loo xam ne mbër gaawul mbër di ko am ci moom parce que dama ko yaboon trop amoon ak moom relation humaine au delà ci làmb on part dañ doon waxtaan dañ doon boo ñu fekkoon ñuy wax da bi lan la yabee Gaston ndax loolu moo ma ci boppam kon nag kii di doomam muy makan te mu te te mu mu commencé def te mu commencé def partition ci liggéey bi yàlla na ko yàlla dëgëral eh, bro waay waay maam saa ñu ngi jaar ñu ngi jaar ñu ngi jaar ñu bëri waaw yàlla na ko makan mi nga xam ne wax dëgg yàlla mi ngi ci kanam di doxal yàlla na ko yàlla may kattan ak doole seytaane bañ a mën ci moom dara parce que nag wax dëgg yàlla tette na ko teg na ko ci yoon te mi ngi commencé doxal te wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar ci moom kon yàlla na ko yàlla may kàttan may ko xel mu doxalee di ko jaale yéen ñëpp waaw ah. Issa ñu ngi lay nuyu bu baax ginnaaw jàll bi loolu mën a wax ci waaw ginnaaw sant yàlla ji sant salaam di ñaan ci réew mi jàmm ñaan kilifa diine yi ñaan ñu tuddee hôpital yàlla fëgg seen bopp na yàlla xaajana dañ ko sax yàlla génne leen di jaale wax axlu làmb ñoo ñàkk Sénégal parce que affaire monument la si làmb quoi parce que sax man monument la si làmb mooy ñun ñuy tëgg na man sama làmb yi ba bëri yëpp gën wàll gépp moo ko tëgg boobu combat mujj moo ko tëgg daanaka mën naa ne li ma tabaxee li ma tabaxee sama kër ay kasam yi ma fay la ay yeneen yeneen yooyu yëpp moo ko fay dëgg yàlla muy jàmbaar maanaam dama naan daal nit ku baax gaañu na quoi jàmbaar jàmbaar daanu na di ko jaale makan di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xa àjjana te attaque si yëpp mu dem di ko ñaanal tamit gën a àdduna ñëpp. waaw yàlla xaare àjjana ak ñi ci préfet tamit. na xarit xam a wax ci moom ci coxéen bi nga xam ne am ngeen waaw àdduna moom Sénégal dañu ma dëgg nga naqadi rek ñoo xam ne naa dama que moom dëgg moom fu nga fekk ma koy wax parce que peut-être loolu la quoi te ñëpp àdduna ñëpp ñoo bokk nungul la quoi lam solo ko gaañu na da nga ñaan yàlla xaaral àjjana quoi dama jàpp ni si gaañu am na yoo xam ne jar amul sens quoi parce que kii am na jikko am naa jikko yaa ngi ma jikko kenn am na jikko si kenn matu fi yàlla nga ma mat kon yàlla mu yor yëmbandeem yàlla naka sotti yëmbandeem waaw. per mu ko yaa ngi ma jikko kenn am na jikko si kenn matu fi yàlla nga ma mat kon yàlla mu yor yëmbandeem yàlla naka sotti yëmbandeem waaw. per mu mujjee dëgg sama combat bi dëgg yàlla ñu naa ba këram. daan signé combat bi sax am baat ñu wax ma ak moom yaa ngi dégg ak moom ak ma góorgóorlu wax dëgg yàlla ma am góorgóorlu si combat bi quoi ndax yaa ngi bokk si làmb li yàlla dimbali génn si mën ngaa sori nga nga nga jëlaat sa place si làmb ji waaw wax dëgg yàlla ni li ma sant ma xam naa ne combat bi damaa dam quoi nee na yàlla may def lu ko neex waaw mais ñu ngi koy ñaanal yàlla daal yàlla borom yàlla moo fi nekk quoi moom mooy àtte jaam yi moom moom àjjanaam moom safaram ko ne lay dugg àjjana kon yàlla yàlla dugg àjjana ñëpp ñu ñaanal tamit suñu président bees bi monsieur Diomaye Faye yàlla yàlla dafa jàmm ba li yaakaar si moom yàlla bu tas di gërëm tamit ñu ñaanal tamit suñu président Macky Sall yàlla na yàlla fay parce que ñun moom Sénégal mu ñu kaa fay ñu ngi koy gërëm ñu ko sant man dafa dëgg yàlla ñu ngi koy sant gërëm waaw di ñaan tam ci jàmm ngeen boole xol nekk benn xam ne àdduna ñëpp kon kilo ngaay jot ko quoi fi xëccoo xool xëccoo fii waaw fi loo fi mën a yar nga fi bàyyi dem kon kilo ngaay bi amul chance quoi nan tàppe xol yi Sénégal yéen sa jàmm moo gën quoi ma xool weer jant bi jarul xëccoo quoi foo taxaw gis nga baax da ngay dee nga bon da ngay dee kon ko yow jéem a baax rek ndax mënoo bon bon ba doo dee mënoo baax a baax ba doo dee ndax dee seexlu kenn sangol ay neefara dee da lay dugg rey la seetal day rey du gërëm loo baax baax di nga day rey da nga ko ci def moo génn àdduna kon keneen du ma waaw kon ku yow jéem a tàpp nga jéem a tàpp xol yi quoi jeex a pare waaw maa ngi ñaanal ñëpp jàmm nag waaw di leen ñaanal jàmm yéen it di ñaan si réew mi jàmm di baal àq ñëpp dama ñëpp baal képp baal naa la xam ne àdduna moom amul solo ko waaw jërëjëf. ndax moom ñoo doon tëgg suñu papa père di di waxaat rek di wax di jaalaat makan di jaal at di jaal ñëpp ndax Père Gaston suñu père la suñu papa la xam nga di ko ñaan yàlla yàlla yërëm te xaru ko àjjana mboolem jullit fa nekk ñëpp ñu ngi ñaan yàlla na yàlla jéggal seen bàkkaar yërëm leen xam nga xar si àjjana yi mhm. kawe waaw suñu frère la suñu xarit la boo xam mu nekk bu baax xam nga nit amul lu dul waajuram waaw di jaale ñëpp comme moom affaire si làmb la mu nekk suñu papa xam nga maka nekk suñu waay ndax fu mu toll maka lañ ndax mooy suñu morom xam mais suñu nekkee suñu papa la suñu mag la sax mais daanaka suñu morom la ndax moom suñu mhm. mu doon journée boo xam ne nii kër yëg ko maam lu ma métti trop waaw ndax noonu la nit moom suñu borom mooy ñun mooy bind. tamit mooy jël moo jël lu mu soxla moo jël lu mu moom moom noonu la fa demee rek bañ dégg bañ ko déggee tamit naqar nañ trop mais tamit dañoo gëm yàlla xam ne tamit noonu la mënoon demee waaw. non dëgg la làmb moom bu demee ba tollu fii moom daanaka père Gaston si la bokk xam nga ndax bay si waaram doxal làmbu ba tey ba nit tax ku bëgg làmb ku ne père Gaston tamit si la bokk waaw di ko jaalawaat àdduna rek. Mhm.